xibaar yi ñoo ngi ciy ànd ak bio Afrique. dalay may kàttan néew kàttan ko tax a jóg néew kàttan gi mooy nan mooy yow ku góor gi jëlal ma kudd suba bu ngoonee nga jël kudd boo bëggee seq sa soxna nga xaar 15 minutes di nga seq ak moom une heure de temps te doo sonn boo amee hémorroïde da koy faj biteel bi mooy traitement bi international partout dans le monde foo nekk mën nañ la ko livrer jëlal kudd. nga naan soo naanee nga xaar 15 minutes boo xaaree 15 minutes nga seq ak sa soxna dinga nga sëy ba sonn sëya sëy ba doyal te doo sonn dinga sëy une de temps doo sonn doo palpité tayit faj gi mu lay faj ci biir raxas sa deret ba mu set lii lu yéemee ngi ci biir amul benn effet secondaire gàncax yépp diggante Burkina la ñaame jëlal ma nga diw lan ngay diw awra bi awra ban awra góor bu fekkee ne sa awra dafa am ñas-ñas wala muy dellu jëlal nga jël dina ko guddal dina ko dijjal tayit bu amee feebar da koy faj lépp defaale nañ ko ci gàncax yi ci biir amul benn sa secondaire lan ngay diw awra bi awra góor diwal ma suba diwal nga diwal ma ngoon te bàyyi leen jàpp seen awra yi di ko diw ba pare jël silib bu dang nga sol ko loolu da koy delloowaat yow da ngay traité te une semaine lañ may jëlal nga diw nga sol sa caleçon. ñu door xibaar yi dooree ko ci doomu Sénégal bi tudd Ousseynou ñaam moom nag ma nga woon ci réewu Lettonie club bu ñu naan Riga démb waxoon nañu leen ne doomu Sénégal bi dina bàyyeekoo foofee wutali réewu Belgique officiellement doomu Sénégal bi dem na ci réewu Belgique. xaatim contrat ci club bu ñu naan Union Saint-Gallois kon nañu ko ñaanal mu doxal ci réewu Belgique ci fàttali club bi doomu Sénégal bi xaatim contrat saison bii ñu nekk dañuy jongante Ligue Europa moom mii di Ousseynou nu nag football am na lool yaakaar ci moom. ñuy jugee ci nu Niang ak clubam bu bees jël beneen doomu Sénégal kii mi ngi tudd mbay ñaa jamono jii nag agent libre la nekkatul xale am na vingt-neuf ans saison bële ñu génn nag ma nga woon ci réewu Italie. club bu ñu naan impoli def na fa nag saison bu xaw a baax waaye club boobee dañoo wàcce dem ci deuxième division bu itali moom mi nag contrat bi ko lëkkale woon ak club boobee dafa jeex tàkk bu ñu sukkandiku ci foot mercato mi ngi waxtaan ak club bu mag nekk ci réewu Iran club boobee mi ngi tudd Persepolis daanaka nag ñaari kër yi juboo nañu ngir doomu Sénégal bi ñu naan mbay ñaa dem ci réewu Iran doxal ci fàttali club boobe saison bi ñu weesu ñoo nekk champion feefee ci réewu Iran mbay ñaa jege na lool ngir dem foofee bu ñu sukkandiku ci foot mercato ñu jugee ci mbay ñaate di ko ñaanal transfert am boobee yembu bu jël doomu Maroc bi tudd Azdin yi moom nag officiellement jugee na ci olympique bu Marseille dem ci réewu Grèce club bu ñu naan Panathinaikos waa olympique bu marseille dañu ko able foofee waaye able gi nag ànd na ak option d'achat bu toll ci onze virgule cinq millions d'euros officiellement Azdin Ounahi dem na ci réewu Grèce club bu ñu naan kos ñu jugee ci Azdin Ounahi ak clubam bu bees jël doomu Brésil bi tudd miro nekk ci mën Manchester United waaye club boobee nag doomu Brésil bi des na faa doxal rawatina keroog bi mën Manchester United di dalal Liverpool match boobee Casemiro doxalu ca te njuumte yu bari la ca amal maanaam mi ngi dund ay jafe-jafe ca club boobee club bu ñu naan Galatasaray nag door nañu waxtaan ak doomu Brésil bi li ñu bëgg moo di fexe ba nax ko juboo ak moom ngir mu jógee ca Manchester United dem ca Super League bu Turquie ba doxal moom Casemiro club bu ñu naan Galatasaray ñoo ko bëgg xibaar boobu Times Sport moo ko xamle. ñu jugee ci Casemiro ak bëgg-bëgg boobee waa Galatasaray am ci moom jël doomu France bi tudd Adrien Rabiot moom nag ak waa Al bu ñoom ñancoo Sadio maane dañu ko bëgg te fowuñu ci ay mbiram ñoo ngi baral jéego yi ngir xaatimal ko contrat moom mii di Rabiot nag jamono ji agent libre la waa Al Nasser li ñu bëgg moo di yóbbu ko ca Saudi Pro League ba mu doxal te jamono ji Cristiano Ronaldo ci boppam mi ngi waxtaan ak njiitu club boobee ngir ñu baral jéego yi balaa yàgg doomu France bi dem foofee jàppale leen naam li ñu leen mayoon ci ay doxandéem ngeen baal ma ci kaddu gi maanaam ñu dëkkul ci réewu Arabie Saoudite matal nañu ko bu yàgg waaye nag jamono ji ñi ëmb Saudi di Pro ba noppi nañu ngir amal waxtaan ak waa Al maanaam benn dérogation ngir waxtaanee mbir mi ñu fexe yokku ca kenn naam matal nañu waaye li ñu bëgg moo di ñoom waa Al Nassr xaatimul ko contrat te loolee lu mën a nekk la xibaar boobu Corriere dello Sport moo ko xamle ñu jugee ci Adrien Rabiot ak bëgg-bëgg boobee waa Al Nassr am ci moom jël doomu Espagne bi tudd Isco moom nag ma nga ca Betis Séville waaye quatre saison ba ñu génn bi muy waaj jeex la amoon ab blessure ba léegi nag wéragut club bi mu nekk di Betis Séville amal nañu ab communiqué nee nañu dañu koy opéré kon nag ñëwagut léegi lu mu gàtt-gàtt dina toogaat yeneen ñetti weer jàpp ñeenti weer door a mën a dugg ci terrain football moom isko mi nga xam ne daaw laata saison bi di jeex la amoon blessure ñu jugee ci Isco ak waa Betis Séville seenub xabaar bu naqari waay doomu Espagne yi duñ leen bàyyee gum dañu jël doomu Espagne bi tudd Fermin Lopez moom dañu ko woowoon ci équipe national espoiru Espagne mu dellu si waat ca Barcelone li ko waral moo di ab blessure tey jii nag waa Barcelone amal nañu communiqué maanaam amal nañu ab bataaxal siiwal ni moom mi di Fermin Lopez dafa am blessure ca cuisse ya lay yëg yëg loole tax na nag dina toog ñetti ayu maanaam trois semaines door a mën a dugg ci terrain football loole la waa Barcelone xamle. ñu jógee ci Fermin Lopez ak waa Barcelone jël doomu Brésil bi tudd Vinicius Junior moom nag dafa séq waxtaan bu yaatu ak waa CNN CNN nag télé bu mag la nekk ci réewu Amérique. moom Vinicius nag li mu gën a waxtaan ak waa CNN bokk na ci racisme bi maanaam boddikonte gi am ci football bi maanaam ñi nga xam ne dañuy yuuxoo nit ñu ñuul ñi ngeen baal ma ci kàddu gi nit ñu ñuul ñi ngeen baal ma ci kàddu gi di leen wax kàddu yu ñaaw lool ñagasul lool moom Vinicius nee na beneen yoon buñ ko ko defee képp ku topp Real de Madrid bokk ci staff bi wala nga bokk ci vestiaire Real de Madrid yi dina la dugal ci biir maanaam dina ñu gedd duggaat ci biir ba ñu lijjanti mbir moomee ndax yëf yi da koo naqari lool waaye nee na nag Espagne gépp nekkul ne ñoo raciste maanaam ñooy def mbir moomee ñuy wax boddi konte ci xeet nee na groupe bu ndaw la waaye groupe bu ndaw boobee mooy yóbbaale ñu bari ndax kat nit dina mel yenn jikko yi su fekkee dafa ànd ak yow wala nga toog ci wetam mën nañu la ca laaxaale nee na Espagne gépp nag bonuñu